taxaw ngeen na ñëpp déglu salaamaaleykum suñu mbokk Yoff salaamaaleykum suñu mbokk Ouest Foire asalaamaaleykum suñu mbokk Nord Foire asalaamaaleykum suñu mbokk yi dëkk ci cité yi wër Yoff yëpp ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Baay Laay sant Baay Laay ndax bëgg a yëf yi feeñoo daf ni leen préparé leen wàqi leen àddunaa ngi ñëw tey la waxoon am na Yoff romb na noor Foire romb na Ouest Foire romb na feneen ñu ngi sant Baay Laay ak njabootam ñi ko fi nekkal ñu ngi sant kilifa laayeen yi fi nekk fii ci Yoff ak ci Cambérène di sant suñu mbokk lébu yi sant Yoff xajal ñu fi ñu ñuy ñëpp ba ñu xaj fii bu ma santee njabootu Baay Laay bu ma tourné sama xel day dem ci sama rakk Mamadou Lamine Mamadou Lamine gor na Mamadou Lamine garmi nga Mamadou Lamine jub nga Mamadou Lamine maandu nga Mamadou Lamine engagé nga nit amul lu dul kàddoom nit amul lu dul kàddoom ak jëfam dañoo sumb suñu bàjjal ni ñu bu ngeen bëggee dara dem seeti ko xale ndaw na loxoom set na waaye bu waxee ak màgget yi lébu yi ak magu lébu yi ak kilifa lébu gi ak kilifa kër Baay Laay ñu déglu ko loolu taxawaay la loolu dëggu la loolu pas-pas la ku wax lébu nag ku wax lébu ko mënoo cee génn du jànjee ku wax lébu ko mënoo cee génne du jànjee ko moom ngay toog mu limal la li ngay def li ngay jaar fi ngay taxaw ki ngay waxal la ngay def ba yàlla suñu boroom jox la ndakaaru ak loo leen bañ bañ bañ ak lu ñu fi ñëw ñëw ñëw ñëw ñoom ñoo sanc seen maam moo sanc ndakaaru ba ñu ñii ñëpp tey suñuy wërsëg dajaloo fi àddina mooy dox ba ay gone juddu ci gox jàng fa màgg fa am fa teraanga seen njaboot nekk fa ba ñu bëgg a jariñ seen gox loolu moo dal Mamadou Gueye defe naa waratuñoo wax fii ci réew mi kii fii la bokk kii mooy jiite loolu ëpp na ñun suñuy maam ci jàmm lañu séq bàyyi laay dafa woote am taalibe tukulër am taalibe njaago am taalibe eh, naar am taalibe euh, soose am taalibe lu ne mu njaboote ñëpp nañ ubbi xol yi xam ni dëkkandoo rek moo baax xëccoo bi buñ ko teg ci ay xeet xëccoo bi buñ ko teg ci diine kii fii la bokk kii la bokk xëccoo bi buñ ko teg nañ ko teg ci xam-xam ak bëgg gox bi ak bëgg defar gox bi du ba jàng jotee jàng nga. Hmm? ba liggéey jotee liggéey nga. Hmm. ba def la nga war a def jotee def nga ko. Hmm. ba taxaw say mbokk jotee taxaw nga leen. ba taxaw jote say waa koñ def nga ko. ba tey yeneen cinquante sept cité yi. ba tey ay candidat yoo xam ni seen cosaan yi yoof la. ñu bëgg mairie bi comme ni ko seen yeneen moroom yore ñu bàyyi seen pas-pas bàyyi seen ngëm-ngëm bàyyi seen lépp ñëw boole ko ak sa bos buñ la gën a gore Mansour jërëjëf. Awa Kone jërëjëf. Fatou Diop jërëjëf. Aïta jërëjëf. njabootu famille Modou Gueye jërë ngeen jëf. ñu ngi lay sant. di sant Baye Seydi Ndoye ak Bamba. Mansour Mamadou Gueye sa moroom la. ànd leen àndu nawle. yéen ak Mamadou Lamine. ngeen taxaw. man ngeen a defar yoof man ngeen a defar yoof man def naa juróom-ñaari at ci gouvernement xam naa li am ci commune yi xam naa li am li gouvernement mën xam naa li commune mën ba nañ bàyyi naxante yi mhm. munoo toog yor responsabilité yépp nekk ci gouvernement yor mairie bi budget deux milliards quatre cent tey kenn mënu la wax yoof lu fi am xëccoo Mamadou mm-hmm. xëccoo bi mm-hmm. du saagante mm-hmm. du wax wax ju ñaaw du wax wax ju tiit du wax wax ju tegganiwul xëccoo bi ci li ngay defal waa Yoff la xëccoo bi ci li ngay defal waa Nord Foire la xëccoo bi ci li ngay defal waa West ci li ngay defal waa ñi nga dëkkal la fan yii nag dégg naa seen téléphone lañ jël di tiitalaate <laughs> naan waaw président nee na kii nee na kenn waxul dara am na sax ñu ñuy menacé naan leen waaw après tu vas voir après après ñoom ñoo fiy jóge yéen ngeen toog fi loolu moom buñ ca eggee ñuy menacé waate naan waaw après di nga xam ñoom ñoo fiy jóge yéen ngeen toog fi parce que yàlla suñu boroom dëgg la bëgg yàlla suñu boroom dëgg la bëgg parce que bëggul ay naxaate munoo nekk ci gox say mbokk tànn la nga soxla ñëw taxaw di leen ñaan yàlla jox la teraanga ji nga tëj sa téléphone yéegal say vertente heure boo fi rombee guddi la fii ñu toll nii ñëpp a ngi daw dinañ jéem a jënd nii buñ jënd jëlal lekk te mu wóor la ni que bu amee li bëgg après noonu lay defaat yow defaroo yoof naan ñu jox la Ndakaaru fii yoof changement bi fi am président Macky Sall moo def projet bi bu naxante de du maire bi lii fi am nii président Macky Sall moo ko def ci programme routier tabax fi autopont entreprise bi def fi RSE du mairie bi mairie bi ñaari affaires yu juwaaloo yooyu la fi defoon te bañ koy def xam nañ ni projet bi dina am mais dañ koo def pour après toj ko loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg kañ ko tudde nag ku liggéeyal Yoff ku amal njariñ ay mbokkam bi ku amal njariñ waa Yoof la woon waaye jëf jiñ ko def rafetul nañu booloo liggéey kenn duñu xoqantal musuñoo dellu gannaaw waaye nag wax ji nañ ko teg ci li ñu rek nañ ko teg ci man lii laa bëgg man ku bëgg a ñëw toog werante ak man lu tax ma bëgg a jël ndakaaru dinaa ni la damaa defar sept points vingt six points mu doon programme ñu bind ci livre. Mhm. dégg naa ñi ngi jéem a njëkkante pour bind programme mais programme kenn du ko bind ci ñaari weer. te ku copier li ñu def ay logiciel anticopie ñu ngi fi ñu wane ni que kii li muy wax amul. xëccoo bi ci xalaat la. xëccoo bi ci wax ak askan bi la. Mhm. xëccoo bi ci wax ak ndaw ñi la. xëccoo bi ci wax ak jigéen ñi la. xëccoo bi ci wax ak kilifa yi la. te yow buñ ko tënkee ci loolu. yàlla suñu borom. mënal na la ko ndax li ngi ñi nga àndal munoo yor mairie président wóolu la jox la ndomba tànk yëpp jox la cër yëpp ba pare nga tëj sa téléphone tey nga bëgg a wër ñëpp du kilifa diine du kilifa aada du say mbokk même tey nga bëgg a ñëpp bëgg xoqatal ñëpp bëgg a tiital ñëpp ni ku àndul ak yow àndul ak président du dëgg man kenn gënumaa ànd ak président xeex bu mu sumb maa ci jiitu. waaw waaw musumaa daw. musumaa dellu gannaaw. tey laa ci gën taxaw. ci suba laa koy gën a yëf yi nañu bàyyi naxaate ni nañ xëccoo ci dëgg xëccoo ci jàmm xëccoo ci dal yàlla mooy joxe bu ñu yàlla joxee ñu xam ne ñun la yàlla jox ku nekk dellu ca la nga nekkoon mais alam nekk nga ni yow tey fitna nga fi indi. Mm-hmm. da ngay nappaate jël sa téléphone naan non bu yow mënoo dem ci liste bi parce que kii sama adversaire la président nee président waxul dara <laughs> man mii mën naa dem toog sama bureau palais jël 880 bi di woo ku ma neex. Mm-hmm. fii réew mi nit ñi yàgg nañ toog waaye kii laa añal président laa waxul comme ci soxla dina la woo ñoom ñëpp xam na seen numéro téléphone ñoom ñoo dawoon ñin ñi. toog ba soxla nit ñi defe ni mën nañ leen xoqatal ñu ñëw nit ñi duñu ñëw mhm. luñ leen jox jële bu voté joxee ngeen voté Sénégal 2035 pour Yoff ak pour Dakar musuñoo nax kenn musuñoo dig kenn luñ deful suñu jikko sax diggaate bokk ci parce que diggaate yàkkamti ngërëm loo moomagul la moo tax ñu indi programme ni fii lañuy ñuy jóge fii la ñuy jaar lii lañ koy defee niñ koy defee ay xale yu seen xel sell la c'est pas parce que àndoo woon ak président que mënoo defar sa gox. c'est pas parce que nekkoo Benno Siggil Sénégal que mënoo defar sa gox ay sénégalais lañ. am na ñu décidé nekk société civile am na ñu décidé nekk beneen parti am na ñu décidé nekk feneen mais bu defar sa gox jotee doomu gox ba ñooy dajaloo te kenn mënul forcer kenn mu topp la. ku leen wax ni que diw nee na way ñi ngi woote fii ñoom ñooy woote waaye yàlla pare na. yàlla pare na yàlla pare na yàlla du jël ay sos dañu waxoon Mamadou Gueye bul topp Mambay da lay perdloo sa temps doo nekk candidat yaa njëkk a déposé fii ci Ndakaaru ñi la ko doon wax yaa leen njëkk a déposé dañu waxoon dañuy dem ba ci yàgg ñu wañ seen loxo duñu dem nañ joxante rendez-vous bisu élection yi incha allah balaa ngoon ñu pare ci parce que jimuñu nit ñi ñoom luñ leen di toppaate dañ leen doon tiital di leen xoqatal di leen dig te defuñu ko di leen ger ak di leen jaay maay kilifa diw ak maay kilifa dew àdduna romb na foofu mm-hmm. nit ñi boo leen jiitee da nga leen di dégg mënoo tëj sa téléphone ku la bëgg a jot laa jot bu nit ñi amee ay jafe-jafe nga naan maa ngi fii ba pare tey nga bëgg a indi nit ñi par force ak teg ko ci ay tiitalaate ay ragal nag du jam guy fi ñu jëm fi ñu jëm mairie Dakar ku dëgguwul du fa egg ak ñun ku ñemewul du fa egg ak ñun ku gorewul du fa egg ab ñun waaye yàlla nee ñi gore ñooy mës a ëpp amul tiit amul ragal taxawal ànd ngaak ñoom Mamadou Lamine ëppale la ëppale wuñ leen ñoom boo amee mag bu mel ni du jànjeeku nekk sa ginnaaw ëppale la ci lébu bi boo amee kër maam waa kër maam Limaamu Laay sa ginnaaw ëppale wuñ la ci bu fekkee ni que dañ leen di jariñ lu ëpp lim leen di jariñ doomu gox bi kiy defar gox bi moo ko gën nañ leen bàyyi naxante bi te loolu day tas réew mi réew mi kenn mosu fee wax ay waxi xeer ay man maay def lii ay man maay def la leen réew mi ñoom bàyyi laay ñoom Serigne tubaab suñu maam Babacar ku ci nekk yoroon nga sa tariixa waaye fexe bañ seen kante kóllëre doomu diw damaa dem kër Baye kër këru diine yëpp am nañ fa turandoo Cheikh Mbacke am na fa turandoo Mansour Thiaw am na fa turandoo donc ñun loolu la xam doo toog ba yow sa bëgg-bëggu kese nga bëgg des ci privilège yoo xam ne mérité woo ko après nga bëgg indi naan man maay lii man maay lële nekkal doomu ku la neex. nekkal fu la neex. maay doomu dëkk bi du waxi dëkk bi. ñëpp ci dëkk bi lañ dëkk. bàyyi laa woon fàq leen ñun ñaa ngi ñëw. ñëw nañ am nañ fi cër dañuy waxtaan xool nañ la ñu defaree gox bi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf.